wax dëgg yàlla nag am ñoo sax jox ngir ñu ñëw buñ la voté ay dañ laa trai ñu déglu Modou Touré dellu si waat. am am nañu ne trahison am na. oui sûrement parce que mënoo am vingt huit véhicules ñaar fukki oto ak juróom-ñett yu mag ak yu ndaw yu xëy di daw damay wax ni maam Thierno di dama confirmé yu xëy di daw ba timis taxawuñu benn yoon. ñu ne amul benn bureau boo xam ne am nga fa lu ëpp trois à dix voix fii ci Touba bi nga dëkk kon loolu moom ku ne trahison amul euh, loolu benn na waar ñeen nañ continuer woo aussi di wéy nañ continuer nekk ci def buñ xarab kenn oui buñ xarab kenn parce que kenn xamul trahison bi ci ban niveau a nekk donte xëy na soupçon mënul ñàkk wante bu ñuy continuer ci nit ñi di demaat ci ñoom ci ñan nit la ñuy demaat mooy nit ñi ñu àndaloon ñu wax ñu lii ñu def lii ñooñu lañ ko ñëwaat est-ce que ñooñu buñ continuer ak ñoom duñ amaat même résultat. ah waaw nag bu woo bu reetaan sëriñ bi nag del dindi kii yooyu nag ah <laughs> jërëjëf Assane Modou bu sodee li ko dal dafa metti parce que Modou dafa campagne sëñ Touba campagne bi yëpp boo seedoo sëñ Touba. Omar Diagne ñii dañoo bañ Sëñ Touba tegul dara ci loxol askan wi lu daal ne commune Touba na ngeen xam ne ñii bu ngeen leen woteelee da ngeen a nangam Sëñ waaye taalibi Sëñ Touba yooyu bi ñu demee ba ci mañ gàcce yi ñi nga xam ne ñoo ko fekk si ci loolu mu doon wax 400 yu tegalu si lëf la maanaam 1000 sax amu ko fa tax na moo tax mu ne dañ koo trahir. waaw sëñ bi de wax dëgg yàlla sang bi dañ koo tooñ. Hmm. ñu ngi koy masawu te di ko remercier si engagement bi nga xamante ni jël na ko. pour liggéey Serigne Touba. Mm-hmm. ndax jamono ji nga xamante ni ñu ngi waajal élection yi. Mm-hmm. Serigne Mountakha mi ngi doon liggéey Serigne tubaa di laaj ab xaalis pour def ko ci mbënd ma ak tuxal ñi nga xamante ñoo nekkoon ci mbënd mi. waaw bi si liggéeyee Serigne Touba si dëkkam ba. Mm-hmm. Serigne bi bi mu ne cas 15 millions yi mënoon na koo jox Serigne Mountakha ñu def ko ci mbënn mi wala ñu dimbali si ñi nga xam ne ñoo nekk si mbënd mi mais su boobaa. du mën a kaasal sëñ tubaa su ko joxewoon ci mbënn mi. waaw su ko joxoon mun Muntaxa mu def ko si mbënn mi du mën a kaasal sëñ Touba. waaw moo tax mu dem jox ko. waa DC. waaw pour mën a kaasal sëñ Touba pour mën a kaasal sëñ Touba. joxe 15 millions pour kaasal sëñ Touba waaw pour kaasal sëñ Touba. waaw. léegi nag ñi nga xamante ni ñoo war ñoo gunge ko si kaasal sëñ tubaa gi. Mhm. ñoo ñoo ànd ak moom di lekk ab ceebam. di naan ab ndoxam di yéeg si ay otom. Mhm. di daw si essence buy discours ñu koy taaj. di ànd ak moom naan ko jërëjëf sëñ Touba. waaw biñ demee ba sa mbañ gàccee fa ñuy wootee ñu xamal ko ni ko sëñ tuubaa man ko kaasa te doo dem ensemble. waaw. daal di bañ bañ ne duñ ko wootee luñ ko. waaw. wax dëgg yàlla ba ñu xamee ne duñ ko wootee waruñoo dugg si ay oto mais duy leen si ay oto ñuy wër Touba di leen yóbbu ñuy wote ñu leen di indiwaat. 28 oto. waaw ñuy dugg bu ñu xëyee ñoo dugg mu yóbbu leen ñu dem wote mu indilaat leen ndekete wotee luñ ko ngoon jot muj woo ñi ñi kii résultat yi ñëpp ñëw toog yor seen i kii am na ñoo xam ne sax jotuñoo noté ah, kafe gañ leen tegaloon ñu teg jël kafe caaf di naan di xaar pour noté amuñu luñ noté ndax kenn woteelu leen loolu xam nga ne metti na. <laughs> wax dëgg yàlla te moom nee na kaasa Sëriñ moo taxoon mu joxe 15 millions pour kaasa Sëriñ Tuubaa. am am am 413 voix. waaw waa ji mu ma koy fàttali. loolu nag kon gars yi ñoo war a xoolaat seen bopp xam kii kat kaasa Sëriñ Tuubaa doo nga tax mu joxe 15 millions naroon a dem ensemble. waaye léegi jëfoo cib jàngat ñu doon wax naan Sëriñ Tuubaa la ñuy campagne dañoo ñàkk ndax kon dañoo campagne wul Sëriñ Tuubaa wala lu ñu doon def. ah waaw ñoom de. ndax ñoom réew mi leen pour ñu dem ensemble ñu fa teggi ba ni ca Sëriñ Tuubaa waa sëñ Touba nag moom sëñ Touba sa ku mel ne sëñ Gànna la ñu xamee woon mu koy waxtaanee. Hmm. Euh, di ko waxtaanee ci waxtaan gu sell ak ku mel ne suñu waajee borom kii TV Tanin TV. Hmm, hmm. ñooñu. léegi nag ah, waaw sëñ Saliou ñoom waaw sëñ Saliou ñoom di ko waxtaanee léegi nag ñoom ñu ni fa tegg seen programme ni jël sëñ bi. waaw sëñ Touba nag dafa mel ne pour nga kaasal ko da nga yeewu. il faut nga yeewu. waaw il faut nga muus. ci naka. boo muusee da nga xam ba xam ñii terrain bi ma leen di woowee sëñ Touba ñoom ànd nañ ci wala ànd ñu waaw mm-hmm. ah, boo nekkat man Serigne tubaa tax may dem ensemble pour kaasal leen da nga leen di liir ba xam ñoom ànd nañ ci loolu wala ñu ci loolu bu fekkee ànduñu ci loolu nga daan ne mankat damay damay dem si daara yi yóbbu sama 15 millions yi sëñ bi tey ji bu demoon daara ju nekk mu joxe fa 10 millions. Mm-hmm. fekk daara yu amul douze mu defal leen douze. fekk daara yoo xamante ne amuñuy basang mu yóbbu fay basang ak i matelas fekk sëriñi daara yi kenn ku nekk mu jox la tonu ceeb. Mm-hmm. neen damay damay damay xeexal sëñ Touba. ndax sëñ Touba daara la bëggoon. seetluwaat leen ba xam ñoom nan ban taxawaay ak ban gis-gis la ñu am ci lii affaire sonde xam naa bu jógee ci lii dana 15 millions la joxoon dana wala 20 millions hmm. yóbbu si daara yi ba xam gars yi ah, ci beneen yoon sonde la a xeexal sëñ Tuubaa gars nii sëñ Tuubaa léegi na jëlaat bi nen yoon pour xeexal sëñ Tuubaa na wut 20 millions te am na ñeneen ñu doon def ay barabu sëriñ ñoom hmm? ñu doon defar ay barabu sëriñ waaw waaw barabu sëriñ loolu mu àddiya la mu ñu defar sa barabu sëriñ moom nga ñëw yëkkati joxe loolu moom baax na wax dëgg yàlla <laughs> loolu lu baax la ñu ngi rafetlu ñu yëpp ku ko def ñu ngi koy rafet waaw waxuma loolu dama ne ñu doon campagne bi ñu doon defal ay barab ah. pour di ko ñëpp la yéen yàllu bëccëg waa diglu rek ba ma pare xaaral ma dama ne waa diglu rek <laughs> waa waa ma ne sëñ Mourou Boussa Dieng ñii <laughs> moo fi nekk ak ñu doon oto yu bari yi di riir oto yi rafet yi yu bari yi di ba ah, ragale noonu la campagne mën ngaa doon sax lii ay oto campagne. lu tax Assane nangu. non non la wax campagne moom ay oto mënuñu see bâche. waaw mais moo tax nangu ma dugg fii non léegi nit nag. di defar ay xabru sëriñ. waaw xabru sëriñ boo déggee ñu ni Euh, ñu ngi defar xabru sëriñ nangam. Euh, yëkkati sa addiya nam. non waxuma ñi ñi participer parce que ñun ñi ñëpp euh, xabru sëriñ si participer nañ suñu alal ña nga ca. waaye dama ki jóg defar xabru sëriñ bi di ko wër campagne ñu naan ah diw moo defar xabru non non defaru xabru xabru bi boo gis kenn di asan damay boo gis ak njabootam ma taxaw ni dañ koy defar nit ñi ñëw participer d'accord inshallah kenn ñuy participer ñi indi ay lampe ñi indi clim ñi indi ay bassin ñi indi ay ay nangam wallaay mesere wallaay mesere wallaay mesere wallaay <coughs> jërëjëf Ndiob.